leen di sant euh, di ñëw tey di am contenté bu rëy Euh, ndaxte euh, suñu budget budget ministère de l'Emploi et de l'action sociale bi nga xam ne toll na ci près de deux cent soixante onze milliards euh, sept cent mille voté nañ ko te voté nañ ko te ni mu gën a rafete loolu nag ma si profité di gërëm bu baax élus locaux yi les représentants du peuple mais également équipe yi nga xam ne maa ngi liggéey ak ñoom mais également au delà même équipe yi may liggéey sectoriel yëpp yéen ci ngeen bokk yéen waa presse Ah, di wax ne rek loolu dafay tax ñu gën a renforcer suñu infrastructure yi gis nga ñu ngi tabax fi nga xamante ne tabax amuloon fa ñu ngi tabax fi nga xamante ne tabax amoon na fa te xaw a màggat ñu ngi koy réhabilité mooy ñu ngi koy defaraat tabax day ànd ak équipement tabax également bu ñu ko defee ba pare fa personnel ba nekkoon mooy ña fay liggéey dañ koy fexe ba nga xamante ne dañu koy dolliwaat fu war a am ay spécialistes ñu fa ay spécialistes foofu far a am ne infirmier moo fa nekk mu nekk fa sage-femme a nekk mu nekk fa même ki nga xamante ne balekat la ñu fexe ba nga xamante ne ànd koog au euh, comité développement santé bu fekkee ay euh, poste de santé centre de santé mais également ànd ak ay conseil d'administration ak ñi ñu fekkee ay l'hôpital la loolu yëpp daal ñu ngi leen ci gërëm fexe ba également garab yi mate garab yi baax et garab yi mate fexe fu war a am ambulance moom fa ambulance mais loolu yëpp dafa am benn gouvernance mooy dafa am noo xam ne dañ ko di tëggee dañ ko di tëggee fii santé moom du fu la neex nga ubbi du fu la neex nga jàngee boo fekkee ci école boo xam ne baaxul ah kon doo mun a liggéey si cycle de santé foog nga defaat ay recyclage bu fekkente ne également yow euh, garab bi ñuy jaay jaarul si fi nga xam ne war na fa mun a jaar du ñu ko jël donc loolu bu ñu ñëwee fii ci représentant du peuple yi dafa baax ñu leen koy leeralal ba nga xamante ne ñun lu ñu bugg rek mooy fexe ba vision son excellence de président Macky Sall ni ñu ko tëggee ci plan national développement sanitaire et social ñu fexe ba mu demee noonu at mu nekk ñu jël plan d'action def ko yaakaar naa ne ci fukki at yi wala bala du ko yegg sax dañ fexe ba képp koo xamante ne feebar nga di nga mën a faju mais également balaa ngay feebar fàttewoon naa ko léegi ci nasaraan ñu def prévention mooy ñu fagaru fagaru am na solo dëkk yu mag yëpp dafa am fagaru mais bu ñu xaaree ba feebar bi taxaw ne ne jonn euh, léegi faj bi dafay xaw a sooxe mais loolu yëpp ñu ngi ci déet bul wax ne bul wax ne kenn mënul leen leen dara de loolu du dëkk dëkk bi mën nañ leen dara de dëkk bi dafa am réglementation dafa am législation ah tey son excellence le président Macky Sall nee na man ak Moussa Balde ministre Moussa Balde dañu dem wax loolu naka lañ koy fajee mais ñun commencé nañ parce ma lim am na école yoo xam ne bi ñu leen seetee teguñ ci yoon wax nañ ñi nga xam ne noonu la ñu war def pour tegu ci yoon ñu ngi leen di xaar jox nañ leen benn délai ministre de l'enseignement supérieur fa la ANAQ-Sup nekk moom tamit am na accréditation ñun daal ñu ngi liggéey yeneen secteurs yi ba nga xamante ne bu ñu paree nag yéen ñi presse bi nañ wax ak wax leen ne leen ay doomu Sénégal la ñuy former nañ leen formation tegu ci yoon munoo former koo xam ne day liggéey kër docteur musul dugg dugg kër docteur sul am lu ñuy wax mannequin espèce su fowukaay boo nga xam ne dañ ko ne fii la xëtër nekk fii la xol nekk loolu wax dëgg yàlla kenn mënut a toog ñetti di former donc ñoom ay sénégalais lañ ñoo xam ne aussi dama jàppale dañu bëgg def lu baax ñu dinañ leen accompagner ba nga xamante ne yëpp yëpp dina mën a tegu ci yoon ngir intérêt Sénégal euh, xam nga fi mu nekk nii dañ doon wax ne amuñu bourse wala ñu ne fay bi demewul noonu mais léegi fexe nañu ba nga xamante ne ah, fay bi xëy na bu ñu wax ne santé di nga mën a am lépp lépp lépp li nga soxla mais fexe nañ ba ñu am un environnement de travail qui vraiment favorable fexe nañ ba nga xamante ne bourse yi cent cinquante mille la yóbbu nañ ko trois cent mille te bourse yooyu am na sélection waaye boo nekkee doomu Sénégal fi nga jàngee jardin d'enfants fi nga jàngee euh, euh, primaire fi nga jàngee secondaire fi nga jàngee université nga ñëw mu ne la jox nañ la bourse joxuñu sa morom nga jàng ci ñeenti at nga jàng ci juróomi at wax dëgg yàlla da nga waroon yàkkamti fu ñu la yóbbu nga dem fa xëy na nag dafa am loo xam ne comprendre ko gis nga barki dem bi ma demee Saraya ka fa fekk mu ubbi bloc opératoire bi dëkkul Saraya dëkkul Kédougou bi ma demee euh, fi nga xam ne mooy Kédougou ña fa nekk dëkkuñu fa fii sax dakaar gi ñu nekk sax kenn ci ñu dëkku fi yow li ma leer ba leer mooy samaam dëkku fi donc lu ñu bëgg mooy ñoom pare ñu muy cardiologue muy ko fu ñu leen wax dem leen fa nañ fa dem parce que sinon vraiment dañuy wax ne dañuy jàdd yoon te jàdd yoon moom baaxul ci dara donc lu mu lu mu laaj ñun dinañ ko def ba nga xamante ne nañ dem foofu maintenant député yi wax nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi rëcc dem bitim réew ah rëcc nag moom xam nga fii monde la rek rëcc moom taxul mu yombee noonu <laughs>